Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse à la présentation Aïcha Toupam. dal nag jàmm yéenekaay yu bëri yu ñu xëyit fasal tey jilee bokk na ci déclaration bu premier ministre Ousmane Sonko ci lu ñeel gestion bu président Macky Sall ci bopp réew bi di Sénégal yéenekaay bi lee di wal Walf Quotidien di xam ne moom Ousmane Sonko daan nay fasal livre noir bu président Macky Sall jëm te la nga xamante ni rek moom moo ñeel yorinu xaalisu askan wi ki nga xamante ni rek moom moo di Amadou Ba Moustapha Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñu ngi leen di tudd ci mbir mi yéene kaay bi Sud Quotidien ah, moom itam addeelu ah, si waat ci li ni mel ah, di xamle ne ki nga xamante rek moo nekkoon ci bopp réew mi di président Macky Sall boo muy wul rek dinañ ko wóolu ci lu toll ci deux mille cinq cent milliards ci suñu koppar ba ñu daal di jëfandikoo te jaarul foofule ci trésor public ak la nga xamante rek moo ñeel lu toll ci milliards ya nga xamante dañ ko rek daal dépensé te bokkul woon ci budget bu Sénégal yéene kaay bi lee di le quotidien moom itam addu ci li ni mel muy xam ne ki di Ousmane Sonko euh, dafa doon amal li nga xamante ni rek euh, moom euh, ki nga xamante ni rek moom moo di gouvernement bi nga xamante ni la leen ki nga ni moom moo di premier ministre bu Sénégal yéeni kaay di la soleil moom itam addu ci li ni mel waaye dellu si si li nga xamante rek moom bi déficit budgétaire ak la nga moom moo ñeel wàllub croissance muy xamle ne ay chiffres rek la ñu daal di falsifié sukkandikoo ci élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko ñeel bor ba nga xamante xamante ne réew Sénégal dana koy am mu ngi toll ci quinze mille six cent milliards ci suñu koppar ci jeexital atum deux mille vingt trois uteeg la nga xamante ne rek moom la ñu fësaloon toll ci treize mille sept cent yéene kaay bile di réew mi quotidien di xam ne ne kii di nag doon di Ousmane Sonko daan na koy fësal mu ni xamuñu woon rek mbir mi nii la yàqoo ci biir réew mi muy xam ne ki nga xamante ne rek moom di Macky Sall ak ay ministre am daanaka dañoo ñoo fenn sénégalais yi ak ña nga xamante ni rek ah, ñoom ñoo di seen partenaire yéene kaay bi di l'observateur ah, moom dellu siwaat ci li ni mel ak falsification chiffre yi nga xamante ni kii di premier ministre Ousmane Sonko ah, daan na koy teg ca ndoddu ni moom moo fi jugee jiixi jaaxa ya nga xamante ni seen xel màcc si wàllu koom am nañ ko ak la nga xamante ni rek moom moo di njeexital yu mu mën a am ci économie bu réew Sénégal yéeni kaay bi di nga xam ne ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko daan nay annoncé ay poursuites jëmale ko ci kii di président Macky Sall ki nga xamante a moom moo di a Ba Moustapha Ba ak ki nga xamante ni rek moom a di Abdoulaye Daouda Diallo yéene kaay bi di enquête moom dellu si waat ci li ni mel muy accusation yu graaw ya nga xamante ni kii di Ousmane Sonko daan na koy teg ca ndodd gouvernement bi fi nekkoon ñeel falsification yu ñeel indicateur économique yu réew Sénégal yéene kaay bi dëkk micro ak kenn ci expert financier moom muy xam ne ne daanaka xaalis bi mënu rek daal di ci fan la jaar rek mën na koo xam yéene kaay bi di tribune moom dellu siwaat ci kàddu Bougane Gueye Dany muy xam ne kii di Ousmane Sonko la mu bëgg rek mu di yàq derub Sénégal ci biti réew ñeel ci wàllub koom yéene kaay bi si siwaat ba tey ci la nga xamante ne rek moom moo ñeel arrestation bu ko fi nekkoon njiital direction générale bu LONASE di Lat Diop mi nga xamante ne ni ki démb daan nañ koy placé sous mandat de dépôt yéene kaay bi di Les Échos moom itam dellu siwaat ci di Lat Diop daal nañ koy yóbbu foofulee ca kaso ba ñeel juróom-ñetti milliards ya nga xamante ni ah, moom lañ koy toppee ñeel détournement public la nga xamante ni ah, moom moo di extorsion de fonds ak lii di ah, yi nga xamante ni nag ñoom ñoo koy layool ñoom génne rek la nga xamante ni moom la ñu duppee ay contradiction ca lañ koy toppee yéeni kaay bilee di bés bi le jour moom dafa dellu siwaat ci livre ba nga xamante ni kii di Robert Bourgi war na koo génnee moom Robert Bourgi dellu siwaat ci campagne électorale bu atum 2007 ki nga xamante ne rek moom moo di Abdoulaye Wade daanaka jot na ab chèque bu benn milliard ci suñu koppar te kii di Omar Bongo tegoon ko ci loxoy Karim Wade yéene kaay bi di libération moom dafa dellu siwaat ci importation ya nga xamante ni ñu ngi koy amal te du jaar ci li nga xamante ni moom moo ngi koy amal te duñ ko jaarale ci yoon ngir génne ay marchandises loolu nag nekk la nga xamante ni moom yéene kaay bi di libération daana koy fës fësal ah, di xamle ne mbir moom nag ah, ñu ko amal ah, ci atum 2019 jàpp atum 2023 parquet ba nga xamante ni moom moo yor boobule dossier la muy sàkku rek mu di ñu ubbi ab information judiciaire yéeni kaay bile di ci performance ya nga moom jour bile di xamle ne daanaka dafa liggéey bu baax a baax ngir am yooyu les résultats ba tey boobule yéeni kaay dellu si waat ci taxawaay ki nga xamante ne rek moom moo di eh, Pape Matar Sarr ci équipe boobulee di Tottenham eh, moom di xam ne ne eh, Pape Matar Sarr daan duggal duggal butam bu njëkk ci ab compétition européenne. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.